ci kawam war na ko ma war na ko mat moom imam bi ba lépp luy tilimal lépp luy yàq waru ko seetaan ci jàkk ndaxte jàkk dañ ko war a seetal toujours ndaxte yàlla moom moom jàkk yi nit moomul jàkk même boo ko financé jàkk warul am tur warul am askan jàkk yàlla moo ko moom ku ko financé da koy def ngir yàlla boo ko defee ngir yàlla nag yow toogal fële bu ñu ni jullee nga jullee ak ñoom bu ñu ni euh, sëlmalee nga sëlmandoo ak ñoom ay nag gis li nga si def nag ba ne ko euh, da nga si am baat loolu du li war kon nag imaam yi war na bokk naam seen discours jàkk bu fekkee dafa am douche bu ñu ni dugg di fa waajale seen waxtu nañu ut ku fa ne koo xamante ne kii du bàyyi douche bi mu mu mu mu mu tilim benn yoon ñu koy fay loo xamante ne jar na ko ba moom it ñu koy surveiller parce que jàkk normalement ay douche fa ñun ñuy toog lépp dafa nekk dafa war a nekkalu sel sell ku fa indi lu weex ku fa indi leneen moo yem da ngay ñëw rek eh, toog waaye jàkk yoo xam ne da ngay ñëw xool fi ngay toog fan la ndax du la tilimal loolu du jàkk kam voilà <laughs> loolu am na solo imam eh, xam naa ni man xam nga comme man maay dem ci jàkk yeeg jumaa yi man maa xam loolu moo tax ma ni nga xam ni ñi imaam yi man cee tontu leeral nit ñi li nga xam ne moom la ñu war a def eh, ndax li léeg nga dem ci jàkk yoo xam ne moom nee naa leen yooyu jàkk moom dina dinaa musa jël émission sax cité leen ndax nañu toppatoo jàkk ja dem daanaka seen dus yi moom di nga ni ñu koy waxee am na duus xam ne di fa mën nekk fanaan fa cuuraay ak lañ fay taal nag loo am solo la kon mbokk yi euh, leen di fàttali ni sunu émission bi yowmal jumaatu euh, noo koy daal di yemale fii li taxan ñu xaabaabal na xam ngeen ni dañu nekk ci en direct euh, ak Futurs média gépp àdduna yëpp ngeen ñuy seetaan and ko ak rajo Futurs média ànd ko ak l'Observateur ànd ko ak service commercial ñoom ñëpp kenn ku ci ne yabal nga booloo bu dee rajo ba Daawuda Diouf la ñu àndal mu ñëw bu dee service commercial ñëw na bu dee euh, ressources bi euh, directeur ba ñëw na muy Mansour Sow ànd ko a ki nga xam ne nag mooy Birane Ndour di adjoint euh, directeur général bi nga xam ni moom mooy Mamadou Ibra Kane Mamadou Ibra Kane moom dañuy wax ni dañ koy ñaanal rek parce que musul tay saa su ne fu nu dem rek fekk ànd na ànd na fa ak nun te boo dee dem sa kilifa ànd ak yow di la jëmmal kon war ngaa sant yalla ca la nekk loolu nag noo koy ñaanal yàlla taxaw ko jàppale ko bu baax a ba waaye nag ñi nga xam liggéey bi itam ñi nga xam ne ay annonceurs lañ ñoo xamee ni dañuy ñëw di joxe ay xéewal bu ñu dem ñu yóbbaale ko wala ñu indi ñu ci seen i oto ñooñu dañu leen sant bu baax xam na bu ñu demee ba ca kanam da ngeen ko dégg ñoom itam ay jàmbaar la ñu ci liggéey bi xam naa itam ñi nga xam ne ay caméraman lañ ñoom kenn du ñoom ndax ñoom ñooy bu ñu nee dañuy defi direct rek dañ leen di band ñu daal di fanaan yi ku mel ni Mass nag moom xam nga moom moo lan teeru Juma fu mu dem rek moom mooy daal jiitu ji moo ñoom tonton mag Soumaré ak ñoom Aziz ñi nga xam ne ñoo ngi ci liggéey bi euh, Jibilaay mi nga xam ne fii la bokk ñoom ñëpp ñoo jàppale ci liggéey bi di leen ñaanal yàlla bu baax a baax di sant ñëpp di wax itam ñi nga xam ni ñooy ñooy waa euh, euh, imprimerie bi nga xam ne ànd na ñoom ànd ak jigéen ñi nga xam ne ñoom itam ñoom maam Dorine euh, ak soxna madame Thiam mi nga xam ne ànd nañu ak moom ànd ak ki nga xam ni itam mooy Josephine ak Njaga Nduur ma nga xam ne moo toog nag te moom du jóg moom fa mu toog lay lay toog di superviser mbir mi dara du manqué du nelaw guddi du nelaw bëccëg saa su ne ma ngi ci loolu ànd ko ak yéen nag ci yowmal jumaatu xam naa jéem a tàggoo rek incha allahu taala ñaanal leen jàmm bu baax a baax mbooleem ñi nga xam ne jàpp nañ ci léeg bi ak sunu doom euh, booy ja mi nga xam ne doom la ci papa ja nekk ci liggéey bi ñoom ñëpp ñoo ngi leen di ñaanal bu baax a baax mbooleem koo xam ne rek ndax groupe bi dafa yaa ñëpp la ñu déplacé ñu ñëw kon nag dañuy daal di ñaanalante rek ànd ko mas juma jéem a ñaanalante Euh, bu ajuma ji ñëw ñu fas yéene dem ko fële ca jàkkay Mosalet Seydou Nourou Tall ànd ko euh, ñooña bu ñu fa jógee itam fas yéene ànd ko ak ñi nga xam ni ñooy waa Tiwaawan ca laylatul xadr ba kon daal xam naa ni incha allahu taala fii la ñuy daal di tàggoo rek. àndan koog itam Cheikh Djili Niang mi nga xam ne moom ci wàllu diine ji ñun ñoo ko ngan ko foofu di ko taxaw bu baax a baax ànd ko ak Aziz Mbaye mi nga xam ne wéy juram moo daan jottal Cheikh Sidi Hadj Malick kon nag euh, Alhaji Aziz itam noonu la ko daan taxawoo kon euh, mbir mi daal ak Cheikh Thierno njaay mi nga xam ne moom euh, ni ma koy waxee rek laaw la cat ci moom ndax foo ko musaa fekk ci kër Cheikh na Cheikh Saad bu di nga xam ne kii borom taxawaay la ak mbooleem koo xam ne rek jàpp na ci liggéey bi ñu ñaanal ñëpp jàmm sëfoor yi itam kenn mun leen a fàtte saa su ne noo ngi leen di ñaanal ndax taxawaayu liggéey bi moom daal xam naa lim juum waaye ku limul ku limulut juum kon daal maa ngi ñaanal ñëpp di ziar ñëpp ci kanam tuuti danañ àndaat ak beneen jataay bu yaatu boo xamee ni euh, Alaaji Abdou Aziz Mbaye Cheikh Thierno euh, ki nga xam ne mooy Jili Ñang danañ ko ànd ak yéen incha allah ñu daal di jébbale nag li ñu indaale jox ko xalifa bu tedd bi su ko defee ñu daal di tàggoo fii rek ba ajuma ak jàmm ñu àndaat ak geneen kër incha allahu taala jërë ngeen jafeti mu doonoon seen xarit Ndiaga Seck ci yowmal jumaa Luqman al Hakim moom Luqman moom bokkaan nekk na di bàyyi tëxu wala boog doomu ndijaayu yonti yàlla ayuba moom luqmaan moom la moo doon métier am en même temps itam nekkoon na ñawkat muy tailleur moom luqmaan luqmaan papam faahuur yaayam naaquur moom xakim la maanaam c'est un sage ku yàlla may xikma la te yàlla ne yu'til xikmata man yasha wa man yu'tal xikma faqad uute xayran kasira yàlla wax luqmaan dëkk boo gisee boo luqmaan alxakim yàlla tuutum ci alxuraan dafa bokkoon ci ay jikkoom sidqul qawli moom wax bu dëggu lay wax maanaam il n'a jamais menti mu nekk nag lu laas lu raas jamono bi luqmaan min axlaaqihi sidqul xawli maanaam ko xëy du wax lu dëgg kooku benn la li ka may loolu ñaareel bi addul amaanaat moom daal luqmaan maam nekkoon na ko am seen moom kuy sàmm kóllëre la ku am wóllëre la Luqman al Hakim ngeen loolu tuddee jamono bi tey ni mu jikko yi mu am ñetteelu jikko bi bi si Luqman al Hakim tamu jara muy tarku maa laa yaani moom Luqman si ay jikkoom bokkoon na sa ba tey mooy du wax lu ko kon gaay indi baax kon tey ñu waxtaanee saar bu am solo mu sotti Luqmaan waaye tey boo xoolee Luqmaan mi ñu jàng tey ji ay mbiram di tari di jàng saar bi biñ ko yàlla tudd kon boo xoolee jikkoom yi mu am maanaam il est exemplaire moom Luqmaan al Hakim xoolal tey si jikko jikko bi gën a ab jikko yi tey yu yu yu yu jafe si doomu aadama ñu am ko tey ji mooy wax dëgg te ku ne xam na ne loo lu waay gàtt gàtt xam-xam sallallahu alayhi nee na. xulil xaqa walaw kaana murran xulil xaqa walaw ala nafsi ndax alxaqu min rabbikum waaye moom waxam bu dugg moom lu luqmaan alxakim moo ko may gaat yi mu am tey jii di wax dëgg kon royu waaye ngoog tax ñu tey jii jël saaram waaye ñaareel jikko bi ma tuddaat encore addul amaana tey doomu aadama yi maanaam ñu ëpp si ñoom maanaam dañu ñàkk kóllëre te ñàkk kóllëre ab julit moomu loolu tey booy xool doomu aadama yi daanaka ñoom seen intérêt dongul lañuy ñuy xool duñu xool maanaam duñ sédd yàlla te bés a ngi ñëw ñi nga xamee ne ñoom dañ doon sàmm kóllëre seen seen kóllëre boobu ñoon sàmm yàlla nañ ko fay boobu sënk mi bés penc kon bu ko defee jikko boobu naf doom bàyyi aadam bàyyi xel ndaxte dangay sëy da far fii te nag sa xarit démb tim ko bàyyi xel loolu daal ay jikko yu am solo si Luqmaan al loolu daal moo ko may kawem ji mu nekk si kaw mu Luqmaan ñetteelu ko bi nag mooy takku maa laa yax ni tey moom doomu aadama yi tey dañuy wax rek lu leen wóorul ñaari xoolal te suñu ba wax ne si alxuraan mu ne in jaaka faasiqun bi naba in fatabayanu jamono bula ab faasiq te mooy ab ab kàccoor andili ab nouvelle na nga na nga na nga nga gëm ndaxte tey nit ñi dañ tàmm qiila qaala